بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءل أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فرقا خلقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا Bismillahirrahmanirrahim. بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل لرحمة سيد julli di ginnaaw bi ñu sante julli si sangu-sangu yu Muhammad ñu leen di ziar di leen ñaanal di kontaan si ah man maa ngi tudd Youssoufa Diène waaw dëkk Bambilor bés bi eh, dafa nekk bés boo xam ne bés bu ñu war la ndax euh, liggéey bi dafa nekk liggéey boo xam ne ñu bëri na xamuñu ko mais sa defaru àdduna ak sa defaru àllaaxira xaj na si mu nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a rafetlu même képp koo xam ne mënoo ñëw sax waroon nga def sa contribution bu dee sa saako mbiski wala sa ndox sax nga indi ko fi parce que lii yàlla dong la nuy liggéeyal te yàlla képp koo liggéeyal sa bopp dong ngay liggéeyal mu nekk loo xam ne baal vraiment kontaan nañ ñu ngi koy rafetlu lii dafa nekk message boo xam ne dan ko war a jàllale dañ ko war a comprendre parce que lu toll ni Bambilor ak Bambilor ni mu peuplé vraiment ñu ñëw ñu ñëw fii di nettoyer cimetière yi mu nekkoon loo xam ne au moins ñu waroon fi fekk ay mag yoo xam ne dina sensibiliser jeunes yi di leen gën a encourager di leen euh, pousser ñu gën a jaamu yàlla donc nak heureusement alhamdulilah ñun bi xamé lolu mu nek message bo xamné rek ñun dañ wara a ñun la jeunesse là pour té Bambilor ah, si côté si côté diiné di ñaanal jeune yi fi nek yépp vraiment yalla taxawu leen yàlla ah, ah, jéggal leen seen bàkkaar ah bi jaay Seydina sallallahu alayhi wasallam sallam nettoyage cimetière bi moom dafa bëri ay ndariñ ben waaw vraiment li nga xamné dafa tak té lutil diiné bëgguko bëgg ko kenn bëgg yow nga ñëw indi sa bale indi sa ratu indi sa sa ileer di ko bay di ko nettoyer ba mu set de ce fait que nit fumu mu mën naa ñëw jàll facilement du am ben arrière pensée si ñax mi xelam dal si koku, vraiment koku tuyaa boobu am importance la loolu am solo la si nettoyage te nit ki da nga set si bir, ak si biti maanaam sa xol dafa war a da nga war a laab soxol dafa war a laab boo seetee sa jëmm extérieurement sa biir sa biir xol da nga war a set parce que xol moom mooy nit bu sa xol bonee rek sa sa bu sa xol baaxul sa lépp yàqu na te kooku yàlla na ci yàlla musal vraiment nettoyage bi nag mu nekk loo xam ne lu am solo la si si si si cimetière yi lu am solo la si jeunes yi li ñuy def parce que comme ni ma la ko wax rek diina dafa set diina dafa set te yàlla dafa bëgg lu set. bon maa ngi tudd Saër euh, si architecture et design intérieur ma fi ñëw tamit comme jëruñu daayira daayira Abab Khadim cité Akis bu Mbambilor bi moom ñun dañoo ñëw tey jii nii pour euh, euh, joxe ndigal bi nga xam suñu imam jono na ko muy sëñ Mansour Ndiaye bu joxoon ndigal ne kon tey dimanche bi nañ ñëw fii nii ngi ñu nettoyé fii donc loolu moo ñu indi en tant que membre daayira sentiment de contenté waaw wax dëgg kontaan waaye tamit euh, sentiment bu profond parce que tey ñi tëdd fii nii ñoo leen ñaanal suñu borom xaar ne te ku ne xam ne doomu aadama fii lay mujj kon tey bis boo ñëwee sa imam di la bàyyil wàll xel ne ñëw ñëwal ñëwal ci barab bi nga nettuwaayoo ko nga rafetal ko boo dee am nga xel tuuti rek sa borom dana la day nekk benn soññee boo xam ne dana la dimbale nga xool sa diggante sa borom ndax ku na xam ne fii ñu baax ñëpp fi ñëpp ñëpp ñëpp fi tëdd kon la woowaatee ci ne la ah fa bul fàttali ne bis dina ñëw kat ñu yeewloo ba nga ba nga ba nga kii denc la fii ñu woola na tey ñëwal nga nettuwaay fii nii boo ñëwee la nga jëkk am moon ne sentiment wu sentiment xëy na dana nekk da nga dana neex trop nga xam ne yaa ngi jëfe ndigal waaye tamit day nekk loo xam ne da ngay bàyyi xel si borom si diggante sa borom xam ne kat fii moom barab la boo xam ne loo fi deful doo ko doo doo ko am comme barab bu mat a waajal la kon sant ñaari sentiment yooyu loolu un peu de tristesse xaw na xaw mooy lu xaw a diis tuuti waaye tamit sentiment boo xam ne tamit fierté ndax au moins da ngeen ba ngeen jàpp ne ah kon kat man jullit laa te jox nañ ma ndigal naa jox nañ ma ndigal ma ñëw jëfee lii yaakaar naa ñaari ñaari sentiment yu xaw a yu xaw a paro yu daal a waaw daa mel nag fii tey mën ñoo wax association mën ñoo mën ñoo wax ne jeunesse dëkk yëpp ndax boo gisee fii am na ay daar yu fi nekk am na ma sàmm sa gox bu fi nekk maanaam mboolem seen Bambilor yëpp ak seen yenn yenn mag yi nga xam ne ñoo ngi si ñu jàppale ñëpp ñëpp fi boole macha allah ci liggéey bi kon moom mënoo xàmmee tey kii moo bokk association sangam wala kii moo bokk daar sàngam ñëpp bokk rek jàppandoo ci liggéey bi وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها